حرف الجيم موي الجلسات اسيدي يبنا كما تكوتيا سياج بكتانتو كما تكوتيا سياج بكتانتو بكا جلسات لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس واو. mën a jataay yi bu dee jataayu borom yi pas-pas lañ ñett bu fa génnee jaratu ko waaw mooy digle lu jekk na nit ñi bo ne illa man amara bi ma'rufin rek ñu defe moy waaw génne leen li ngeen am saraxe ko la man amara bi sadaqatin kun aw ma'rufin ma'ruf bobu le ni ko nit ki wara a dégg mu ngi ci toogaayam toogaayam bu jekkul nga ni ko ndax mën a toog toogaay bu gën jekk bi foofu la maaruuf bi commencé ndax mënoo toog toog bu gën jekk bi waaw kay te def ko façon boo xam ni rappel rek lay daan waaw ngay commencé ko koy maaruuf bi waaw sadaqa bi ci kàddu la commencé nit bala nga koy sarax alal sarax ko kàddu yiw ba noppi lu ama am solo la xëy na dina ñëw sax ci cours yi ñëw ci wàllu lu ñoo tuddee pays pauvre ak pays riche ya ci aju al faqr wal est ce que yàlla rina rina gëm nako ba mu jeex ak mal farq bayna al ghina wa tharwa waaw ak li ñoo tuddé tuddee al mal ak al khair c'est une différence manam nit bala nga ko jox alal war nga ko jox kàddu yiw yu ëpp doole ci moom alal ji ndax inna allaha qassama baynakum axlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum moo tax rizq rizq wala firi na ko mais dafa juum risque wala firi na ko mais dafa juum waaw ah, maanaam baatu wërsëg ar risque ñu ni wërsëg maanaam ak fu mu mën a yegg ak yow nag boo dee bu ñëwee ba ci sëg ya moom wërsëg ya dem or bu dee ci diine déedéet ar risque du tàggoog yow ci sëg mukk foog mu jàll dutaat googu yow ci sëg foog mu jàll mooy axyaaun inda rabbihim yurzaquun waaw waaw moo lay xamal ni kon yëf ya daggul ca bàmmeel continué naag yow ba foofa waaw loolooy tax nag nit ki bala nga koy may nga wax ko kàddu yu ko fàttali boppam soog koo jox gis nga lu mel noonu ñu ngi ko jànge ci kilifa gu mag gi bu la daan masa recevoir <laughs> su ma gis mu nit ko mel noonu surtout bi ñu gënee nekk ndaw nekk ci daara ji man xam naa ma ko ci gënoon la jël ngeen baal ma baat waaye du lëjëlu la jël lëjëlu bañ yëfam tardé bu ma masaan def yenn gëstu ci waxtaan yi te comme jot ci moom yombul booba ñu nga Tiwaawan

léeg-léeg fi muy pare di solu lay ñëw ni ko ah baal ma de waaw ah, ma ni ko dafa amoon ñaari laaj rekk yu ma bëggoon laaj de ci lu ma gëstu woon ci sa waxtaan sàngam waaye bu dul yaatu ma bàyyi ba mu yaatu ñu baax na isaan toogal ñu toog ma ni ko sa waxtaan sàngam danga nga waxoon nàngam ak nàngam mais ma seetlu wax sangam bi Seydina Ali wax wala wax sangam bi Seydina umar wax wala bi yonent bi wax ma xaw am jaxle nak ndax dafa mel dafa am genre contradiction ci ni nga waxe ak mom ni mu waxe ma bëggoon nga lan ma tuuti mu re reeyam yooyu nga xam ni isaan dani dafa mel ni Seydina Ali day dafa mel ni ci principe la waxe motax tax mu waxee nii man nak sama waxin ci méthode terrain la delu motax ma waxe ni pare na jatam san jeex na say naali lii moo tax mu waxe ni man ci ni la waxe maanaam par exemple dama ko ni dama dégg nga wax ni سيدنا علي neen la an yuxti kullu rijali خير من ان تزل قدم المرأة سيدنا علي نينا نانيو باي غور نيب نيو ديف تاخان بو لن نيه يوانم واي جيجين موم بو نكو باي يموك مو ديف بن تاخان xam lool la seyna ali wax suñu cheikh ni bu ñu bëggee jigéen ñi jaar yoon nañu yar góor ñi ndax góor ñi ñooy caaxaanloo jigéen ñi est-ce que ngeen ñaari wax yi xam nga dafay mel ni am na contradiction kii moom nee lu góor ñi bëgg a def nañu caaxaan bu leen neexee moom yoonam waaye bu jigéen ñi caaxaan te kii nii la bu fekkee ni yaruñu góor ñi góor ñi ñooy caaxaanloo jigéen ñi kon dafay mel ni contradiction dafa am mu ne ma kenn ku ne ak contexte bi mu waxe Seydina Ali principe la waxe man nag réalité terrain ci laa wax nga xam ne affaire bi daal di sant day sant boobu mu ngi pare pour dem ci ziar général ñu ngi koy xaar ci salle bu mag bi ba ma fekk ko mu ngi defar mbaxane mi nii di ko defaraat da euh, bëggul sax bouger mbaxane mi wadd muy defaraat di ko bës di ko defar falaa toll fekk ko fa ma taxaw tuuti ba mu pare mu def nii ah fekk mu ngi ci coiffeuse bi ah Oustaz la ma ni ko ah, ok dama amoon ñaari question yu ma bëggoon laaj de waaye comme yaa ngi pare pour dem mu ni ma baax na euh, euh, guddul ma ni ko dé mu ni ma waxal daa di wax mu mu daal di tontu tontu ba nag mu ne waaw kay noonu la de noonu la waaw kay may jóg mu ni ma ma daal di taxaw ci ndongal daara bu nekk ci daara ji mu daal di nii nii njaganaay bi ndeke pare woon na ko daal di rocci ñaari liyaasu cent mille francs ni ma am nga jënd ji jënd ci téere mu ni ma yéen seen alal na law téere waaye bu bul génn mukk nit xam ne jox naa la dara